waa asalaamaaleykum uh, waa Cap TV uh, waa Cap TV asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa bitim réew waaw waa Cap TV ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen wax ni yàgg nañ ko fekke ay déwén yi seen liggéey rafet na di ñaan yàlla ngeen yàgg koo fekke di ñaan yàlla yàlla yokk leen mu doon ay télé télé télé ci barke Seydina Mouhamed waa man la Ngoné nag artiste comédien di ma Marème Mbodj di bàyyi faalam waaw tey jour màggal gi la màggal 2019 la ñu wax barke yonent bi sëñ Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek waa ñu nekkoon ci waañ bi nag ndax koo xamul noo koy def na mu la defa tax te sëriñ Touba rek moo ñu tax a jóg ñu nekk nag waa axlu mis wi rek doon mis wi suñuy ba mu nga ne defe jël nga ah, ah xar yaa ngi nii rey nañu ñaar fukki xar ak ñaar def suñuy mis wi togg suñuy soos di ñaan yàlla rek yàlla may ñu fekk ay déwén yi déwén rafet nañ ko fekkee di ñaanal yàlla Cap TV yàlla ko ci kanam kanam kanam ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di leen ñaanal jàmm nag saa su ne te di ko ci yéen yàlla mi borom jàmm tey may jàmm te ku may jàmm rek nga am nañu defal ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaana sama mag ji Mari Mbooj nag mu yàgg fi lool di ko wax ni nag Mbooj lu ma mën ren rek bu ne yàlla na mën lu ko ëpp ci barke Cheikhul Khadim moom sagal na buur sagal na baadoora sagal na ñu mu xamul yàlla na ko yàlla teral ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul merci beaucoup waaw ñun ñun daayira ñun ñun ñun ñoo moom daayira bi sëñ Aziz Abo lañu la ñu yaakaar tey ak ëllëg barke yonent bi daayira bi daayira fen la ah? gis nga benn tur rek la am benn daayira la am ñun nag ñoo dalal daayira yëpp barke yonent bi di ndeyi daara ji ci biir kër gi di ñaanal suñu sëriñ boobu nag Mbàkke Balla Aysa mu yàgg fi lool te wér barke yonent bi ndax dañ naan suñu bàmba ji ku ci bëgg na ñëw sàkk waaye ñun bañ ko xamee ba tey réccuwuñu ko ndax bëgg na Mari Mbóoj sagal na ko ñu ngi koy ñaanal yàlla Mbàkke yàlla nañ ko fi yàgg fekk mu yàgg ñoo ñaanal yàlla doolu xéewal ci barke Seydina Muhammad te xam naa ne leen ñaanal yéen ci kaw ci kanam rek ci lépp lu baax barke Sëriñ Saaliw kon daa

Abdul yaa donnu Seex Abo mi donnu Baara moom it mu donnu Bamba doomi Jaara yaa donnu Seex Abo mi donnu Baara moom it mu donnu Bamba doomi Jaara borom no se abo mi don no ba abomido nu baara morit mu doon nu Bamba doomi jaara baayu seex abo maami seex aboy gaynde baara baar baayu seex abo maam gaynde baara baar wax leen borom day fakk bay laa xayloo sama ma seexal ñi fi raw ba wax leen Cheikh boobu Madiana ku man turam doo làkk ba wax leen jërëjëf Cheikh boobu jërëjëf Cheikh boobu wax leen jërëjëf Cheikh boobu aboy gaynde baara baari maam daam yaa bëri njëriñ. maam daam yaa bëri njëriñ. maam daam yaa bëri njëriñ. maam daam yaa bëri njëriñ. daam yaa bëri njëriñ. daam yaa bëri njëriñ. daam yaa bëri njëriñ. maam bamba yaa bëri njëriñ. mambamba yaa bari njëriñ dam yaa bari njëriñ mam dam yaa bari njëriñ mambamba yaa bari na ñëpp am jàmm Cheikh Abdoulaye Sabo yàlla na fi yàgg te ku ko wax yàlla na nga fi yàgg te wér baa ngi nuyoo di leen sargal di leen sant baax ci teraanga ji ngeen fi indi neen na yàlla na fi yàgg indi di ñaan ci barke bis bi nga xam ne attan na lépp muy di sabar muy bis ba nga xam ne cëri Sëñ Tuubaa xëy di liggéeyal yàlla ba am ndam nee na li ngeen ci bëgg te parce que na ko yàlla def waaye rek Mbàkke yàlla na ko yàgg ànd ak yow xol na guy. Mhm. soxna Marème. sëñ baa nga lay sant la ma saw ci sa borom kër googu dawlu Ousmane xaritam la woon nee mu bàyyi laag lépp xam ne liggéey liggéeyam jaamu yàlla képp la nee na di sant jigéen ñi ak ni ciy jàpp di jëwriñ jëwriñ jëwriñ Cheikh Cheikh ni toog ak jëwriñ yëpp ne li ma ta wax xëy na siyaar bi di bëgg a jot ndax dañuy waaj li dem sëriñ Moustapha waaye rafet na tubaarkalla teraanga ji mat na baax na soxna ma dem yal na yàlla dimbali yaa ñu ko àndal ñëpp njabootam ak i bokkam ñëpp ak ñu ko àndal yëpp ak ñu ko jàppale yëpp ak njaboot yëpp rek lu manqué rek nee nañ jox Serigne ci mu jot nag ay kàddu yi nga xam ne jóge na ci mbooloo mi jëm bi ma ngoog. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu di siyaar di jiite ci nuyoo bi sunu sang bu baax bii El Hadj Sëñ Abdou Aziz Abo Mbacké ñu ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wër yàgg noo jiite ñu yàgg toog ca gànnaawam Adja Marème sëñ bi sant na gërëm na ñun sunu xel sedd na sunu xol dal na yow boo sañoon tey ji lu nekk ci guy mbind rek. Ya koy ya ko ya koy jox mu lek ya koy jox mu nan ngir seigne Abo madian soy Mbàkke gisulo ci dara luddul dul ko mom mi yal nang ko yag man yag ñing ko andal ñepp ak soppe xariti bobu ba nga ni si kaare nga ni bis gaare barke démb ba nga ni senegal Tour lol du ay tiaxan kon yal nang ko yal nang ko gëna man ñu yag ko def ñu ko fekk tu seigne bi yag lol and ngeureum allahumma salli ala sayyidina wa sallam nee na nee na siyaar bee tax. Mbacke. ndax nekk dafa mel ni da koy bi ndax ñun jëwriñ amul bu ne dafa mu tudd ko jëwriñ loolu lu rëy la. nee na rafet na trop tubarkalla nee na teraanga la waaw. bu ndee ba ñëw nag mot mokkali kàddu yi. ah. ndeysaan. ah, ah ma nga noonu. ñun yaay sunu sag yow yaa nu yërëm yaa nu dimbali yaa nu bëgg. lii la ma leen defal. passé avion nee na kii Mbacke sa Mbacke. ak nee na ak xeeb lool. nee na ak xeeb lool. Mbacke. Lamine nii moo ngi toog kër. nee nga dem lay ñaanal baax foo bëgg àgg yàlla na ko weesu. nee na ya Adja Marème yal na kaala gi dab. te wér topp ci. te wér topp ci. nee ma ni mu ko joxee boppam la ko joxe njabootam. nee na mu boole njaboot ki ak boppam jox Serigne Touba ak sëñ Baara mu jeex téléphone nee euh, na siyaar bee tax bu ndee ba ñëw nag la ñuy mottali ñu mottali ko jërëjëf tàllal leen nag رب وهاب يا رزاق يا رب نعين والفر والحياة ويا رب نعين يا رب نعين وجلال اللهم يا رب يا مطالب أكثر الله أمين وي يلا نعم يا رب